élection bi division bi man sa daf maa bett parce que bu may bokk si fit wala F24 naa ne ñun ku jàll dañuy topp ci ginnaaw keneen ki mais on situation que l'opposition est vraiment divisée ku nekk yaa ngi xalaat sa bopp am na ñun ñuy kaasa defaat élection yi wala ñu defaat euh, processus bi ñu mën a bokk donc ñun am nañu trois wala quatre candidats yu jàll war noonu mën a dajaloo jàppale candidat boobu mais malheureusement tey nag on a une opposition divisée te loolu continu les continuité lay indi. waaw dinañ soutenir kenn c'est-à-dire que élection yi dina ànd ak kenn kenn koo xam ne dinañ xool programme dina xool jaar-jaaram dina xool mën-mënam ñett yooyu su dee remplir donc ñu xam ni kii moo gën ci candidat yi da nga koy dem jàppale ko. parce que nag vraiment di voter opposition rek parce que ñu ne opposition la te jël ku yées ku fi nekk loolu tamit erreur la loolu tax tout temps nañ xam di fol fal mais pas di fol yi donc